allo. oui. rek noo def. ça alhamdulilah. yaa ngi si jàmm. Issa maa ngi si man la Marie Louise. ban Marie Louise. xamoo ban Marie Louise. Marie Diaw. waaw. ah ok ça va. yaa ngi si jàmm. cool alhamdulilah. Euh, dañ maa woo léegi am wax yu ma wax yu ma jaaxal en venant de toi. wala ñu parce que parce que da nga dem si Babacar Gueye ne ko que vite nga ma xam sama jikko neexu la baaxuma dañoo dem Thiès man ak yow bokk xaw ma hôtel ma nekk fa góor a di wax yu dul jeex yu bari jarul may dugg ci détails yi man xam nga ma ku ma lu ma waay def dama lay woo wal ma fekk la sa kër lijjanti ko ak ku mënti doon ci àdduna dama ne lu ma waay wax wala lu ma def damay koy woo ñëw sa këram. yow da nga ñëw nga ne sama fans nga da maa bëgg yaax saf. nga ñëw ma ubbi la samay porte robe ma jox la yére ma jox la nga sol ñooy ànd bali def lépp. non danga may dégg déglu ma déglu ma déglu ma déglu ma déglu ma déglu ma. déglu ma ah ah mosoo sol sama yére mosoo sama sama daal. mosuma sol sa du yor nga whatsapp su ma paree loolu dinaa la ko yónnee xëy na da nga fàtte. déglu rek ba mu pare déglu ma pare ah. rek yi jël suma frère may la ko nga génn ak moom muy Abdou Aw ah. ak geneen a yeneen ak yeneen yow tey yow yaay xëy ne man danga may yàq parce que man damaa bon moo tax nga bàyyi ma. waaw après après nga ne rek man dama bon man di wër di ma yàq si Babacar Gueye. pour pour ndax parce que da nga bëgg mu tàkk la dimanche. Euh, Marie-Louise mu tàkk ma ak mu ñàkk maa tàkk ak lu mu mënti am loolu man aw ma benn compte bu ma lay rendre. non soxla ma nga rendre ma compte mais dama la ne beneen yoon a tee pour bu la naxa dalee laa la wax de xam nga jàmm laa njëkk si laa mos a sëkk ak yow déglu ma man soxla ma ku ma ragal mais man xam nga ma rek ay dara man daw ma saala yaay ndeer fekk la sa kër googu noonu nga toog ak ku mënti doon ci àddina def lu ma fay def la mais dama la ne beneen yoon a tee nekk la ku la neex déglu ma. def ko nekk la ku la neex ci àdduna mais dama la ne dama la ne nga gérer li ngay gérer nga gérer te nga génne sa làmmiñ man sama tur looloo tax ma woo la. boo ko waxul woon du egg si man. Euh, yaa ngi amul ki la ko wax wala nangam ak sangam dama wax rek. yow barki démb moo barki barki démb moo njaay téléphone boobu. Ah? allo. téléphone boobu ko may ma naroon ko wax Cheikh Kouyaté ko may. dama ne. man bu ma bëggee Babacar Dieye takk ma. du ma bàyyi. du ma du ma du ma ko du ma fi nekk di yàq deru kii que ce soit Babacar li ma waxante ak moom moom xam na ko daf ma laaj dama lay fréquenté ma ne ko maag Marie-Louise fréquenté nañ benn ab de temps ma ne ko ñu bàyyi ñu bàyyante ku nekk jël sa yoonu bopp. ma ne ko maag Marie-Louise du ñu wax parce que dafa dem Thiès fanaan ak sama far Ablaye Dieye comme xam nga mais bu fi nekk di naan ay danga maa joxe yére ma sol man musuma sol sa yére. musuma sa dërëm musuma fanaan sa kër te musoo ma présenté beneen ko dul Abdou Aw te Abdou Aw laaj ko est-ce que maag moom mës nañu génn wala mës nañu def def lu ñàkk fayda Racky waaw Racky yaa may dégg maa lay dégg ne damaa dem fanaan sa sa copain Ablaye Dieye Ablaye Dieye nga fanaan ko fi loolu ma ne loolu loolu ñëpp jot nañ ci ah d'accord léegi baa léegi léegi d'accord naa lool léegi léegi léegi déglu ma nga jot nañ ci d'accord loolu su ma paree Ablaye Dieye naa ko léegi yow dama lay laaj yow yow est que ñëpp jot nañ ne que barki dem moo njaay nga yàq biir ñëpp jot nañ que téléphone boobu nga yor Cheikh yaate moo la ko jox ak ñëpp d'accord nañ que Seydi la Seydi Seydina Laay moo lay jooyloo ba baa xam nga ne yow mariage bi du am baa xam nga loolu yow xamoo ci kan ngay dugg de bu nekkee pour pour pour